Sénéinfo International. Sénéinfo International Sénéinfo.net bonjour daleen ak jàmm si lu gën a fës si xibaar yi tey mercredi 13 décembre 2023. Walf Quotidien moom entretien la def ak euh, Amadou Ly candidat à la présidentielle nee na acculé sans détour donc euh, mu ñëw rek insister sur aide de la aide à la presse Walf toujours ah nee na aide à la presse. Cheikh Niass annonce un livre révélateur hmm, nee na Amadou Ba m'a promis euh, la transparence euh, une fois élu donc loolu la euh, Cheikh Niass xamle euh, dans Walf Quotidien dans sa une mu ne euh, la mafia d'État Cheikh Niass la mafia d'État enquête la nébuleuse de l'aide à la presse donc livre bi mu ngi noonu. donc euh, l' observateur moom nee na le bas du jeu électoral loolu la def à sa une euh, nee na un de genre décrypté par les spécialistes notre système n'a pas créé de garde-fou qui permettent de dissocier deux fonctions donc euh, journal bi euh, dans sa une nee na Amadou Ba premier ministre et candidat euh, de Benno Bokk Yaakaar donc euh, loolu la journal bi ñëw xam xamle ñëwaat rek si Aly Ngouille Ndiaye bi nga xamante ne moom convoqué nañ ko tey ji à la sûreté urbaine mu ne Ousmane Cissé, ex-DG des mines de la géologie, a aussi reçu sa convocation. Euh, prolongation euh, de garde à vue pour, euh, pour maître euh, Moussa donc euh, loolu la journal bi xëy xamle mu ñëw rek si Ousmane Sonko mu ne verdict du tribunal hors classe de Dakar Sonko l'avenir c'est demain. ñu des si journal bi ba tey rek mu ñëw si AJ 2024 nee na l'interview annonce des des grandes innovations. dinañ le délégué général Aboubacar Sarr sur le pèlerinage euh, au lieu saint de l'islam nee na l'instauration de la prescription auprès d'une banque de la décentralisation les visites médicales donc ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, délégué général au pèlerinage muy muy Aboubacar Sarr moom mu xamle daal li nga xamante ne moom mooy grande innovation yi di xam ne def nañ ko si âge bi nga xamante ne muy âge mu koy xamle dans l'observateur dans sa une Euh, le quotidien moom dafa ñëw si procès euh, Sonko bi nga xamante ne moom prévoir nañ ko demee gannaaw buñ ko euh, renvoyé ba jeudi bi suba incha allah nu ne Sonko n'est plus le maître du temps loolu la journal bi xëy xam ne mu ne en éventuel pouvoir pourrait prolonger la procédure risque de forclusion dans le dépôt de fiches donc loolu la journal bi xam ne Genève droits humains Macky défend la lutte des extrémistes dans sa une le du ñëwaat rek si pèlerinage bi nee naa douze mille huit cent soixante pèlerins le Sénégal garde son quota donc quota bu ñu amoon euh, année passée moom la ñu amaat amaat année bii euh, si euh, pèlerinage à les échos moom mu ngi ñëwaat rek si maître Moussa Diop mu ne maître Moussa Diop déféré demain il continue d'assumer ses propos si donc loolu journal bi xëy xamle ñëwaat encore ne. Euh, procès sous la radiation du leader de l'ex-PASTEF sur les listes électorales calme plat à Dakar les avocats se frottent Sonko demain doon la journal bi euh, xëy euh, xamle tey dans sa une. le soleil moom dafay ñëw si discours bi nga xamante ne Macky Sall def na ko fële à Genève nee na du haut de la tribune de l'ONU de à Genève le président dit ses sur l'état du monde donc mu Le Sénégal estime qu'entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, une seule ère civilisationnelle ne peut, euh, ne peut définir la manière dont tout le monde doit se comporter en droit et en devoir loolu Macky Sall xamle fale ci Genève ñu des rek ci journal bi mu ne plus de trois cent cinquante cinq mille bénéficiaires dont soixante femmes dont soixante pour cent de femmes donc loolu lañ journal bi xamle euh, dix ans de la bourse de sécurité familiale euh, donc après 10 ans euh, de la bourse de sécurité familiale ñu ne daal 60 euh, pour cent des femmes si téeméer yoo jël la 60 pour cent cinq soixante yi si jigéen ñi juróom-benn fukk si jigéen ñi ñoom bénéficié nañ si bourse de sécurité familiale yi loolu moom la journal bi xëy Le Soleil xamle tey dans sa une. La Tribune moom dafa def à une li nga xamante ne moom mooy. anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme fële ci Genève ki nga xamante ne moom Macky Sall nee na démontre la société civile Birahim réplique donc loolu la tribune ñoo xam ne nee na le populisme le radicalisme et l'extrémisme sont les pires menaces aux droits humains selon le chef de l'État Macky Sall donc ki nga xamante ne moom mooy Birahim Seck nee na du forum civil ah moom nee na euh, la malgouvernance l'injustice les inégalités et les inégalités sont de l'homme donc bu bu ko Macky bu ko Macky waxee loolu loolu la ko Birahim euh, Seck euh, tontu Birahim Seck du forum civil mu nekk euh, la une du la du journal La Tribune de ce jour donc ñu des rek si La Tribune moom ñëw na si la démocratie nee na invective accusation manipulation la démocratie respectée au fair play donc loolu la journal bi xamle. donc euh, nee na à deux mois de l'élection présidentielle Aliou Aliou euh, Jules Diouf renonce à sa candidature et rejoint Bougane ki nga xamante ne c'est un candidat à la présidentielle moom it euh, Aliou moom il a rejoint dafa ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany pour jàppale ko wala pour ñu ànd nekk benn àndandoo ci présidentielle bi. chers internautes de Seneinfo International Seneinfo point net lii la leen indi loon ci lu gën a. fës tey mercredi 13 euh, décembre 2023 ñu ngi bu baax a baax si teewlu de te dina ñaanal yendal jàmm. Sene Info International.